doog a wàcc dinañ ci dikkaat Mor doxalal man. waaw moom ñu nekk di ko di ko di ko en tout cas ñaanal d'abord yërmande yàlla. yàlla yàlla àtte ko si yërmandeem fa mu jëm gënal ko fi mu jóge ak ñam fa fekk ak euh, ñoo ko fay fekk aussi muy ñun ñi te yàlla na yéex di wax ne àdduna moo noonu ala kulli yàlla demal ak maa ngi ñëw la. surtout mm. euh, bu fekkente ni dañuy wax que ni bu dee amuloon dund du am xorom kon ala ñu jàpp ne. pour aussi tamit sunu àdduna bi ñu dund maanaam xorom il faut un jour ñëw ñu jóge fii dem fi nga xam te ni moom mooy yowmal xiyaam yal na yéex te ñu jiitu rawatina moom mi wàcc léegi nii mm-hmm. yal na ko yàlla uh, sunu borom yërëm te jéggal ko di ko jaale Wally Seck di ko jaale en tout cas aussi tamit uh, ay procham di ko jaale aussi uh, en tout cas le monde musical parce que tey aussi beneen mbir la moo frappé waat ci ñoom di nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla lu lu lu lu doy la amaana nag peut-être man Euh, amuma amuma habitude lu mel nii dal ma tellement que ni mu may xaw a kii parce que euh, lépp rek dañ koy delloowaat sunu borom xam ne moom moo mën. Mm-hmm. Euh, moom moo sañ lu mel noonu buñ fekkante ni ñun ñoo sañ amaana am na si yoo xamante ni duñu arrivé sunu àdduna mais allah yàlla yàlla moo. na mel noonu yal na leen yàlla defal xolu muñ nit nit nit amul noonu nit. Mhm. doomu aadama mënul nekk noonam nit doomu aadama mënu koo teree lekk mënu ko teree naan mënu ko mhm. teree ndox soxlaam mënu ko teree wax lenn moo lay teree ndox muy feebar lenn moo lay teree wax sa soxla muy feebar à chaque fois dama koy wax damay naan nit noonam du lenn lu dul feebar nit mhm. ak moroom nitam mënuñu defante lenn loo xamante dina la saf nit ak morom nita bu duñu defante lenn loo xam na tere lekk nit ak morom nita mënut a def lenn loo xamante war na la mën a doxal sa yoon <laughs> maman Diaga nag nekkoon na une personne boo xamante vraiment ku neutre ci lépp lépp àdduna def ci neutre demoon na sax ba doon sang ay néew te loolu nit ko maandu rek moo ko mën maandu maandoom eggoon na ci muy sang néew maandoom eggoon na ci ay coow doog ci dégg maanaam eggoon na ci malgré li muy dégg yëpp ci doomam bii di Wally Ballago Seck jiñ nañ ko fi lu nekk mu koy dégg te xolu yaay na dafa jege ci doom muy dégg lu nekk mu soo ko dégg mu àdd àddu ci lu ni mel barki dem moo njaay gis nañu réaction bu mu am bu doomam jooju wàññeekoo di Euh, di di di moomi dana gis nañu réaction bi nga xamante ne moom la ci am da cee dal tey ci loolu yëpp nekk ab naqar boo xamante ne mu ngi ci poosawu ci xolam Mama Diaga nag nit kese la vraiment nga gis sa wéttal di Thione Ballago Seck gaañu ci anam bu gaaw lu rapide lool lool lool ñu gisaat ki nga xamante ne mooy moomi bi nga xamante ni ba mu gaañoo ay yaxam sax ndeysaan seddagul tey euh, leneen dara ci kaw ki nga xamante mooy faramaare bi ñu koy ñaanal moom tamit xolu muñ vraiment mu mu mu yàlla may ko kattan ak mën-mën bu mu mën a àngoo li nga xamante ne moom la teg ci kawam euh, tey tamit euh, Mor nañu fàttali ne yàlla lu mu def rek am na lu tax mu def mm-hmm. ko euh, ndax am na ñoo xamante ne dund nañ ba toll fi ñu toll mosu ñu teg bët seen yaay am na ñoo xamante ne dund nañ ba toll fi ñu toll mosu ñu teg bët seen pap donc bu tey ji balaa euh, Ballago Seck am na chance peut-être dund ak yaayam ba certain âge am na chance dund ak papam ba certain âge am na chance tamit gis magam ba yenn at yi donc bu lii dalee ci kawam vraiment mu nekk naqar mais tamit ñu koy ñaanal bu baax a baax a baax xolu mu ñu koy ànd ak moom naqar bi nag fii Dakar gi yëpp ñu ngi ànd ak moom naqar bi di ko jaale di ñaanal ki nga xamante ne moo di Mama Diaga euh, yéex am suuf sedd lool lool lool ci kawam yàlla na dëddoo ak jàmm ay doomam Amina Amina. Mm-hmm. tu es sous xam nga des fois dégg dese yu lay fàttali lu bare bare bari. voilà. dëgg la parfois nga dégg dese <laughs> surtout dese yaay ci doom dalay fàttali lu bëree bëree bëree bëree bëri mu nekk loo xamante ni moor ku ci ku ci ku ci war a wax rek man mii mën naa see wax ndax liñ naan yaay yaay dafa dafa baax ci doom surtout doom bu jigéen yaay daf koy soxla ci wetam tout le temps doom bu jigéen day soxla yaayam ci wetam soo yaay moo mën a fekk ci ay problème rey boppam fajal la say problème sa yaay moo la mën a fekk nga am ci ay naqar mu jaay yéreem fajal la ko sa yaay moo la mën a fekk ci naqar mu jaay takkaayam fajal la ko loolu yaay rek moo ko mën ci doom te buñ gisee nit yaayam wàññeeku sa xel day sori sa xel day dellu ci ci sa bopp ba pare sa xel day dellu ci ñi nga xamante ni say rakk lañ ay tuut tànk vraiment euh, ñu ñàkk seen yaay day nekk mbir moo xamante ni day nekk lu metti lool lool lool lool lool di ko muñ loo yàlla nag ndax yàlla lu mu def mhm. moo gën mhm. lu mu def vraiment moo gën parce que <laughs> di nga di nga ñàkk sa yaay gis ku la taxaw di nga ñàkk sa yaay gis koo mhm. xamante ni dalay taxaw taxaw la defal la loo xamante ni mooy gën sax li sa yaay waroon def ci moom moo tax à chaque fois damay naan yàlla lu mu def rek moo gën dangay gëm yàlla gëm yàlla man boog damay gëm yàlla gëm yàlla boo xamante ni damay naan yàlla bu teelee jël sa wayjur xamoo ko yenn xam yi peut-être metti na mais du metti li mu doon méttee mooy nga dem ba miin ko daan nekk si wetam tout le temps daan waxtaan ak moom mu lay génne ci yenn yi di la tegal place di la lii di la laa du tëdd nelaw te déggu la du def dara wala boog doo dugg si dara te vraiment déggantewoo leen tey bu ne nee eh, yaay diw dafa gaañu rek sa xel day dem automatiquement si sa bopp nga xalaataat sa bopp toogaat position boobu mais yàlla baax na yàlla lu mu def Amina loolu moo gën. yàlla lu mu def rek dëgg la. Mhm. dañ naan sax dee lañ njëkk a sàkk ko dund. Mhm. mais dafa nekk lu metti loo xamante ni boo ko déggee rek des fois. Mhm. des fois des fois euh, na ma yàlla baal da nga naan ci préfères même ne pas vivre la douleur que ngay dégg ni nit bu la jege dem na. kër nga toog nga dem sax moo lay gënal nga dégg douleur boobu parce que. ça m'est ça m'est arrivé une fois ki nga xamante ni moom moo ma yar. Mhm. may lekkandoog moom fanaandoog moom di nekk ak moom h quatre mhm. sama grand-mère nga xamante ni moo def lépp si man wax ak moom pare noppi ñu woo ma ni ma dem na c'était voilà donc mënuma imaginer tey jii la famille Seck la la ñu dund quand même. Mhm. perdre seen papa en espace de deux mois de trois ans. sa seen sœur dem. quelques mois après ñu daal di ci teg yaay li nga xamante ni moom mooy. ndëgër laay doom. ñun la sa yaay dem na loolu boo ko ak ñoom sax en fait mën nga sentir li nga xamante ni moom moo di moom moo di douleur bi mm. mais jaaga moom dañ naan li ko li ko borom këram coon loon rek. Mm. Ndeye faatu Diaga son boobu noonu. Mm-hmm. je pense que ni jikko yooyu nga xamante ni moom la làmboo woon ba boroom këram ni ko ajaaraama mën nañu xel dal na. Mm-hmm. parce que nga jege ko nga ñàkk ko jege yëpp. di ngay faral di dégg ak di gis ñu naan la jaaga diine mooy ndëgër laayam mm. jaaga du jóg ci sijaada jullikaay di nga mm. dégg ñu naan la lu mu am njaamu yàlla moo ko gënal mm-hmm. musul taxaw fëgg dënam wane ni samay doom mënal nañ ma mosul taxaw wane ni mankat mën naa dem wala ma def lu ma neex musoo gis jaaga ci yenn détails yi d'ailleurs sax euh, bu ñu fàttalikoo lu gàtt li nga xamante ni moom la ñu jotoon a déggoon ci moom récemment coow li amoon ci Ramadan wax na ci dox na ci ba saafara daal di amaat nga gis ni keroog tamit coowal coow bi nga xamante ni moom moo amoon ba aadamoo di ci wax jaaga dafa gaawantu daal koy fay mu woon la ni dund ci coow bëggul bruit bëggul wax bëggul féewale bëggul yàq ci la ñu a dégg li nga xamante ni moom mooy di nouvelle ki nga xamante ni moom moo di suñu yaay ji di jaaga mm-hmm. c'est un choc quand même choc la choc la bu rëy rëy rëy ñu daal di koy dégg waaye mënuñu mukk être à la place de ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ses enfants mm-hmm. donc dañu dañuy compatir la douleur mm-hmm. comme que suñu borom la nag moom moo soxla moo jël mm-hmm. ah jël na lu mu moom te yàlla na ko yóbbu fa gën di aljana yàlla dee la njëkk a dund ka ka ka moom la njëkk a bind ka dund ñuy euh, masawaat famille Fadema Reyni di xam le ne nag ma gaañoo foofu ca Paris suite à une maladie dafa xawoon am jagadi wér-gu-yaram mu jot ci ñàkk bakkanam noonu la ko yàlla bëggee noonu la ko defee mhm. yàlla ay dogalam vraiment kenn mënu ci dara lenn rek lañ mën a wax muy euh, seede bi rafet